nguuru Sénégal la mu dëgmaloon ci ay recette ci wàllum budget mu ngi toll woon ci lu ëpp ñetti junni milliards ci suñu ay koppar ci atum 2024 nag prévision yooye dem nañ ba yegg ci lu ëpp ñeenti junni milliards ci suñu ay koppar la ci yokk ëpp benn junni milliard donte nguuru Sénégal mu ngi doon xaarandi budget bu toll juróom benni junni milliard ci atum 2024 ndax ndorteelu exploitation pétrole bi ak gaz bi teewul prévision yi ñu ngi yokk ndànk-ndànk waaye nag sore na lool ak li nga xam ne ñii di waa direction générale du budget la ñu doon xaarandi situation boobee nag li ko gën a yokk mooy yéexaay bi ñu nemmeeku ci ndorteelu exploitation hydrocarbures yi ci exposé des motifs ñeel projet de loi de finance bu atum 2024 nag ñi ci nemmeeku ambition yi nga xam ne njiitu réew mi amal na ko ngir doxal budget bi donte sax ñetti weer rek moo ko desee laata élection présidentielle yi dugg si ambition yooyu nag ñeel coppite koom-koomu réew mi ngir gën a dooleel croissance bi amal ab transition écologique bu dëgër gën a ñoŋal taxawaayu askan wi dooleel itam li ñuy duppee protection sociale bi ak lii di politique publique yi te itam suuxati jàmm ji ci biir réew mi ak ci bitim réew ndax njiitu réew mi dana mën a doxal ambition yooyee laata élection yi di am laaj boobee ëlëm na ñu bari ndax nag donte élection yi li ci des bëreetul teewul ñii di waa ministère de l' intérieur nga xam ne ñoom ñoo nar a organiser élection yi leen nag seen budget dañ ko wàññi bu baax ndax lañ ca wàññi ëpp na juróom benni fukki milliards ci suñu ay koppar dogal boobe nag méngoowul benn yoon ak jamono ji ndax nag nemmeeku nañ ne ñii di waa présidence nag lu ëpp juróom-ñetti ci suñu ay koppar.